ngay wax ci dog bi faratay julli yi ak ay sunaam ak yañu sopp ci julli ak yañ ca sib ak ya ko yàq faratay ni mu ko wañee fukk laal ñeent ba ci jëkk mooy yéene yéene ci day ràññi ko bu dee tispaara mu yéene tispaar bu dee takkusaana mu yéene takkusaan bu dee keneen noona yéene nag mooy dog rek ci xol bi ràññeel yéene jooju nag ba tey bu julli gënee jullit sunna ni ki wetar wala jullit korite mbaa tabaski mbaa raxibatu muy ñaar rakay fajar ràññeel yéene ji du ci mën a ñàkk boo weesoo yooyu nag moom xeet naafile yi gu mën doon muy yoor yoor muy dawal tisbaar mbaa takkusaan ak yu demee noonu bu yéene naafile rek mu doy du jar ràññeel yéene ji nga tudd ko ci sa làmmiñ dagan na waaye nag bañ kaa def moo gën teewul nag nee nañu bu fekkee ne bu tuddut yéene ja faaw mu jax-jaxi ci xelam ba xam yéene naam yéene wut kon dañuy sopp sax mu tudd yéene ja gannaaw boo teewloo yéene ji ba noppi bu la rëccee sam xel di xalaat ci leneen du ci wàññi dara ndax duñu sart ne faaw da ngay ànd ak yéene ji rek di wéy boo ko teewloo ci njëlbeen gi rek mu doy ba tey julli goy julli bu dee goy julli ci waxtu mbaa muy goy fay nga ñàkk yéene ne ci waxtu yi laay julli julli lii wala nga ñàkk yéene ne daa koy fay du ca dara du ca wàññi dara boo dee julli ci waxtu wa boo yéenee julli ko rek dal nay dellu ci waxtu wa ndax nekk nga nekk ci waxtu wa wane na ko bu dee goy fay itam te amul genn gu teew buñ koy mën a jaawaleel kon waxtu wa jàll gam jàll rek wane na ne da ngay fay bu amee nag waxtu teew te jullee googu am goo bëgg a fay nag faaw nga ràññeel ci yéene ja du mën a ñàkk ba tey di julli ak julli te sab xel demul ci na li mu rakkaam toll wàññiwul dara mel ne mu yéenee julli suba te xelam demul ci ne ñaar rakka la wala mu yéenee julli timis te xelam demul ci ne ñetti rakka la kàbbaru armal farata la ci képp kuy julli moo xam day jiite moo xam dañ koy jiite moo xam day julli moom dong kàbbaru armal moom wax allahu akbar rek moo cay doy bu ne woon akbarullahu du doy bu ko weccee woon loo xam ne ñoo bokk maanaa nit ki allahu azam du ko taxa doy bu dee bijji allahu maanaam gi ci allahu da ko bijj rek bijj ga ci yell te bañ koo ëppal bu dee julli julli farata ba muy kàbbar kàbbaru amal boobee mu taxaw boole ca ndegam mën naa taxaw mënta ñàkk farata la ne kàbbar ba doone farata noonu la taxawaay ba doone farata su fekkee mën naa julli taxaw mu toog kàbbar ba door a jóg julli ga yàqu na kabar ba doone farata noonu la taxawaay ba doone farata ndegam mën na ko bu dee naafile nag moom naafile sañes na caa toog kon mën naa toog wax allah ku bara muy armal door a jóg jàll bu ko soobee ca taxawaay ba dañ ne woon buy kabar allah ku bar armal taxawaay ba farata la mu ne nag ku ñu raw mu fekk ilimaan bay rukkoo mu ragal ne bu yeexee rek boo baraka raw ko ba tax ba muy wax allah ku bar ba lépp taxawu ko mën naa am daa tàmbalee kàbbar ca taxawaay ba mootlee ko ci ba muy sëgg mbaa ba mu àggee ca rukkoo ba ca wóom ya wala sax ba mu tàmbalee sëgg rek la door a tàmbalee wax allahu akbar lu ci mën doon daal la dul baax daal mooy mu wax allahu akbar te yéene ca kàbbar rukkoo ba rek xam nga kàbbar rukkoo bi moom sunna rek la ne moom bu waxee allahu akbar te ràññeelul ba xam da koy jagleel armal bi am da koy jagleel rukkoo bi du ko tee baax ndax dañ koy moomale kàbbaru armal ba su yéene yaay yëpp itam ba tey baax na waaye nag lay bon mooy mu wax allahu kubar te yéene ci allahu kubar yi rukkoo ba mu fekk ilimaan nga xam ne kon daa bàyyi allahu kubar yi faratay armal wax allahu kubar mi sunna rek kooku moom du baax bu xasee fekk daal ilimaan mu jàpp ci woom di rukkoo mu daal di gaaw rek wax allah kubar te yéene ca armal maam boole yéene ca armal ak kàbbaru rukkoo ba mbaa yéenewu ci dara rek ndegam fexe na ba teg ay loxoom ci ñaari bëti woomam laata ilimaan di siggi ba taxaw taxaw jonn rek ak julleem dal nay wér julli ga wér nag bokkiwul ak ndax dana wañuwaale ràkk boobee ci ak julleem wala du ko wañuwaale moom lay bëgg a wax maanaam bu fekkee dafa taxaw tàmbalee wax allahu akbar ba ilimaan raw ko nag mu daal di sëgg àggale wax ga allahu akbar nga xam ne moom tàmbali gaa wax allahu akbar moom ca taxawaay balaa mot li nga kay moo am ca sëgg ga mbaa gannaaw ba mu sëggee ba àgg ca wóonu ya te amul kenn taggale loolu ci lañu wute ba xam boobu rakk dana ko wàññiwaale am du ko wàññiwaale wax ja gën a wóor mooy waaw dana ko wàññiwaale bu fekkoon ne nag wax ga allahu akbar tàmbaliwu ko ci taxaw ba muy sëgg la tàmbalee wax allahu akbar kooku moom ñëpp dogu na ci ne du wàññiwaale booba rakk faratay ñeenteel bi ci julli mooy jàng faatiha bu dee yaay jiite wala yow rek yaay julli te bu amee ku lay jiite moom ku lay jiite bu jàngee rek jàngaale na la bu dee ci yoonu maal nag moom bu sa làmmiñ dee yëngatu ngay wax rek doy na sëkk doonte déggoo ko ci sa nopp waaye la ngay jàng déggoo ko ci sa nopp du tee jàng nga faatiha du ñu sart ne faaw nga di ko dégg mu ne bu waxtu julli jotee te yow mokkaloo faatiha waaye gis nga ko la ko jàngal te it boo ko jàngee da nga ko man kon day war fi saasa nga dem ci kookee mu la koy jàngal fi àggee ca waxtu way bëgg a jeex nag te mënoo koo mokkal nga seet koo xam ne mokkal na faatiha mu jiite la te bu julli ko jàllee nga wéyaat di ko jàngaat ba ba nga koy mokkal rek ndegam daal yow ku la jàngal nga man te gis nga ku la jàngal faaw da nga war a jàng faatiha ba man boo dee julli jullee ko su fekkee ne nag doo ko mën a jàng mukk niki da ngaa luu wala mën nga koo jàng waaye gisoo ku la ko jàngal mbaa waxtu wu xat ba nga xamee ne mënu ko mënu ko faa jàng mokkal ko kon boo gisee ku mokkal faatiha maanaam daal ku mat ilimaan faaw da ngay dem ànd ak moom mu jiite la waaye doo sañ a ber sa julli bopp su fekkee ne yow mën laa jàng faatiha ndax da ngaa luu wala mën nga koo jàng waaye gisoo ku la ko jàngal mbaa mën nga koo jàng gis nga ku la ko jàngal yaa ngi koy jàng it waaye nag waxtu wa dafa xat ñu ne la woon kon seetal ku mat ilimaan mu jiite la ba tey nag amoo ku mat ilimaan ku la mën a jiite mu ne kon faatiha ja wàcc na la taxawaayu jàng faatiha ja wàcc na la kon soo mënee kaabaru armal soo waxee allahu akbar rek rukoo moo ci war a sës waaye daañu sopp nag soo waxee allahu akbar nga bañ rukoo fa saasee saasa soo amee baat yow mën a sikkar nga sikkar ko door a rukkoo su fekkee xamoo leen looy sikkar nga ne pat as ndiir door a rukkoo waaye bëgg nañ nga tàggale diggante kaabaru armal baag rukkoo ba boo déggee ni ñu waxee day mel ni ab luu ndegam mënta jàng faatiha te mëne su ko koo jàngal balaa julli rek faaw mu wër ba gis ku ko jiite su ko gisul nag door a julli moom dong waaye am nañu ne ab luu moom dañ koy génn ci boobu àttee jàng faatiha bu addis ba ne ku jàngul faatiha doo am julli taxul nag addis ba ràññeel ne ràkk yëpp yëpp ñoo war a am faatiha moo tax nag am na yeenti wax yoo xam ne ay wuute la benn ba ne julli gu ne rakkam yëpp ñoo war a am faatiha te boobu lañ ci gën a dëgëral am ñu ne lu ëpp ca li mu rakka ya bu amee faatiha rek lu ci gën a néew mën na ko ñàkk am ñu ne benn rakk doom bu xasi am am ñu ne xaajib julli ga mooy rakka yi nga xam ne ñooy xaaji julli ga buñ amee faatiha rek xaaj ba ca des am nga faatiha sunna la moom itaalis moom dafa wax yaari wax yi nga xam ne bu ci nekk bu siiw la benn ba mooy faatiha daa war ci mboolem rakkay julli ga amul bee ak bee ba ca des ne la ëpp ca li mu rakka ya mën ñoo ñàkk fatiha waaye la si gën a néew moom mën na koo ñàkk ki bu dee jullit ñeenti rakka ñoom dañuy jàpp ne fatiha mën si ñàkk ñett ya bu dee jullit ci bis ñett rakka ñu ne ñaar ya moo mënta ñàkk fatiha yaay wax yépp nag ñoo maase ci ne bu dee julli ñaar rakka moom mel ni suba ak ajjuma ñaar rakka yépp ñoo war a am fatiha wax gi ne fatiha dafa war ci rakka bu ne ci rakkay julli ga ak wax ba ne la ëpp ca rakkay julli ga bu amee fatiha rek loolaay la war yaar wax yépp ci Malik lañ ko jëlee bu njëkk bi moom lañu sukkandikoo moom la wax ca mu dawwana ba ca des nag nee nañu daa mujj waxaat ko te jàpp ca mel ne ku bàyyi bu njëkk ba dañuy wax ne bu fekkee ne benn rakk rek ci ak julleem ci la jàngul faatiha te xas rukkoo nga xam ni mënatu koo dabaatal wala faatiha ja sax doon na ko jàng daa am rek lu ca manqué doonte ab laaye la waaye daal faatiha ja mu matut waaye xas na rukkoo kon di dëgëral ñu wax ne sujjóot mën na koo defar day bañ a yàq julli ga bañ ko wëcc sujjóot na xabla salaam mel ne ku ko defare julli ga li mu wax fii nag moom mooy bu dee benn ràkk dong moom baamu du ko jar ay wax ji gën a wóor mooy moog lee mu cee bëgg a teg ñoo yemoo dañu bëgg bu sujjóot xabla salaam defare ko julli ko wogee bañ ko wëcc ndax saamonteeg ña wax ne julli ga yàquwut ba noppi nag bu sëlmalee dellu baamuwaat julli ga julliwaat ko ba julli ñaari yoon daa wax ne nag bu fekkoon ne am na ñaar rakk yoo xam ne ci julli ga amuñu faatiha te dabaatal ga wees mbaa julli ga day jullit ñaar rakk dong ndiki suba mbaa ajjuma te benn rakk ba amul faatiha nga xam ne kon julli ga benn xaaj ba amul faatiha moom foofu lay waxe ne lañ gën a taamu mooy mu sàmm wax yi ñu wax ne ñàkk ga faatiha du yàq julli ga sujjóot xabla salaam mën na koo defar mu daal koy defari sujjóot xabla salaam ba noppi nag baamuwaat julli ga lépp julliwaat ko na mu ko jullee woon nga xam ne kon dafa teqale moom ba ñaari ràkka di xaaju julli ga wala ba benn ràkka ci julli ñaari ràkka di xaaj ci julli ga ñàkkee faatiha da koo teqaleeg ba nga xamee ne rakk yi ëpp ci rakk yi julli ga am nañu faatiha bee nga xam ne la ëpp ci rakk yi julli ga am nañu faatiha moom na mu waxee bu sujjóotee xabla salaam defaree ko julli rek du baamu bu dee nag xaaj julli ga ni bu dee julli ñeent rakk ñaar ña wala bu dee julli ñaar rakk benn ba amul faatiha moom dana sujjóot xabla salaam defaree ko julli ga ndax topp wax yi ñu wax ne loola du yàq julli ga sujjóot mën na koo defar waaye xur jaa teg nag moom mu baamuwaat julli ga ñu bëgg laa xamal foofu ne la yaar yëpp a yem liñ jàpp rek moom mooy day jàpp ne sujjóot xabla salaam mën naa defar julli ga daal sujjóot xabla salaam defaree ko julli ga ba noppi nag baamuwaat julli ga ak lu mu ci mën doon rek na baamuwaat julli ga jarul féetale baamu ga fële bàyyi fële ni taaliskat bi waxe nga xam ne kon su jootoon na xam ne salaam defara ko julli ga ndax sàmmoon te ñu wax ne julli ga yàquwut suna rek la bàyyi te su jot mën na koo defar musalmal nag dellu baamuwaat julli ga julliwaat ko nag ndax def la gën a wóor mooy sàmmoon te ñu wax ne ñàkk ga faatiha day yàq julli googee bu wax ji naaree bari nga takk ko rek ci wax ne ku jàngul faatiha daal waaye njuumte rek a tax te xas na sa guru koo mënu caa dellu kon moo xam la ëpp ci julli ga am na faatiha mbaa xaaj baa am faatiha mbaa la ci gën a néew moo am faatiha ñoo ci yemoo day wéy jàpp ne sujjóotu xabul salaam mën na koo defar ngir sàmmoonteeg ñu wax ne benn rakk dong bu am bu xosi am fatiha loolaay farata ja sàmmoonteeg wax yooyu day tax bu sujjóot xabul salaam mën ne ku koy defare julli ga ba noppi nag baamuwaat julli ga ngir def la gën a wóor kooku nag coono lay doon ndax day julli ñaar yoon rek kon ngaa takk rek ne su fàttee fatiha mbaa lenn ci fatiha te dabaatal gi wéewagut mooy sëggagut jëm ci rukkoo ba da koy war a def bu ko deful rek julli ga yàqu li mu wax nag ne su jóot xabla salaam def rek ko julli ga wëlbatiku julliwaat moom coono la dafa mel ni daal takk-takk bañ daan wax moo gën a noppale dañ ne woon ab rakka boo ci bàyyee farata lay tee nga mën koo defar mooy nga jàll ci rakk ba ca sus ba rukkoo ca ba siggi su fekkee nag loolu am na ba mënatoo koo defar nga wàcc booba rakk ba sus ci moom wecc ko bu dee faatiha moom boo xasee sëgg rek duñ bàyyi ba nga rukkoo ba siggi faatiha moom saa yoo xasee bàyyi rek boo xasee sëgg jëm ci rukkoo ba ñu jàpp ne dabaatal nga wees na lu mel noonu kon la gën a noppale nga bañ a wàññiwaale booba rakk te ba sës ci moom wecc ko ba sa julli matee faaw mu am ndolleen mënta ñàkk soo seetee nag ndolleen am ci wet wàññeen am ci wet nga def xabla salaam su fekkee ne dolli kese la nga def baada salaam daañu la gën a leeral ci kanam li nu wax léegi ne boo bàyyee ci ràkk bii ab ponk lay te nga mën koo defar mooy nga jàll ca ràkk ba ci sa sëb rukkoo ca ba siggi lu may nag muy ràkk bu mujj ba bu dee ràkk bu mujj ba daañu la leeral lay tax doo mën dabaatal farata jaga ca bàyyi xëy na sax jàngoon nga ko ci téere jàll dana ko leeralaat moom it ci kanam maanaam su fekkee ñàkkam ñàkk jàng fatiha moo ko tey moom julli ga day yàqu doonte sax ñu wax ne boo xasee jàng fatiha ci la ëpp ca rakkay julli ga rek da ca des jàng ci fatiha sunna la it taxul ñu yemale sunna boobu ak sunna yi ci des saa yu bàyyee jàng fatiha ci tey rek moom julli ga yàqu na maanaam su bàyyee léppi fatiha mbaa mu bàyyi lenn ca fatiha ba xas rukkoo ñu wax ko ne ko dabaatal gi wees na waaye da ngay sàmmonteeg wax yi ñu wax ne sujjóot mën na koo defar daal koy sujjóotul xabla salaam su fekkee ne sujjóotul sujjóot boobee bu mu xas yàgg dañuy jàpp ne julli nga yàqu na te xam nga bàyyi benn suna dong moom bu fekkoon doon lii kon bàyyi benn suna képp bi la ci digalee sujjóot di ki yellu mbaa biral bu xasee yàgg da nga koy bàyyi noonu te julli ga baax na waaye fii moom bu bàyyee faatiha ji ne ko su jotal ko xabla salaam mu doy bu ko yeexee fàttaliku bu sëlmal bu mu yàgg rek julli ga day yàqu ndax du ñemale ne faatiha ji sunna la ak benn sunna ci sunna julli ci des bul fàtte ne moom bu fekkee la ëpp ca rakkay julli bi xas na am faatiha dane woon boo su jotee xabla salaam julli googa doy na du jar ngay baamu noo la wax ne la daal lañ gën a sukkandikoo mooy yëpp yam bu defaree julli googee ak sujjóot xable salaam it na baamu rek boole ca li wax fii nag mooy bam la nee it loo ëpp ca raakay julli ga bu xasee am faatiha ni ki ñeent ràkka ñett yëpp am na ko benn rek moo ko amut mu ne woon bu ko sujjóotalee xabla salaam mu doy te du baamu boobu la ne nag bu bàyyee sujjóot boobee rek ba sëlmal ba mu yàgg te defu ko rek julli ga yàqu na farata juróomeel bi ci wàññi bi mooy taxawaayu jàng faatiha jàng faatiha day farata ndegam kooku mën naa taxaw itam te julli ga di farata boole ja kon taxaw jàng ko farata lay doon su toogoon te mën a taxaw mbaa mu sëgg ci waxtu muy jàng faatiha ji rek julli ga yàqu mbaa boog ba muy jàng fatiha mu wéeru ci loo xam ne da ko sës dooleem ba bu loola daanu woon mu ànd ak moom daanu bu doon ci naafila nag moom mën naa taxaw jàng fatiha ba noppi toog jàng fatiha te du tax julli nga yàqu ndax naafila sañes na caa toog te fekk nga mën a taxaw boo farata la te it day aajowoo booy rukoo nga bàyyi ko cib taxawaayu sëgg rukoo moom balaa mat nga koy def bàyyi ko cib taxawaay rek bu dee ci farata moom lu leer naññ la bu doon ci naafila nag ñu ne sañ ngaa toog naafila boo taxawoon di jàng ba rukoo rek def nga àgg suuf nag léegi door rukoo day jàpp ne ko na ngay fo ndax dem cib taxawaay nga bàyyi ko woon ca naafila ga ca taxawaay ba nga waroon a jàlle rukkoo waaye war laa toog nag door rukkoo rukkoo ci bopp nag mooy nga sëgg ba nga xamee ne say tënk dege naag say bëti woom boo ko see def loolu rek rukkoo am na jàpp nga ca bëti woom yi bu dëgër dëgër moom lu ñu sopp la waaye nag boo sëggee rek te say tënk àggul ci jege say bëti woom kon ca dëgg dëgg rukkoo da ngaa junju farata juróom ñaareel mooy siggee ca rukkoo ba nam sëggiwul rukkoo bu jàlloon rek sujjóot du baax ndax ñàkk gaa siggi farata juróom ñetteel mooy sujjóot ci jëbi jëbi nag duñ sart ne lépp jëbi muy dëpp ca fa muy sujjóotee lenn ca jëba rek lum néew néew rek bu dëppoo ca fa muy sujjóotee farata ji dal nay am sujjóot ak bakkan dañ caa wóotee am ñu wax ne sunna la am ñu wax lu ñu sopp la am ñu wax ne lu war la ngir saamoon teeg wax yi ñu wax ne lu war la nag bu fekkee sujootul ak bakkanam dañ koy digal mu baabu ca waxtu wa ndax saamoon teeg ñu wax ne sujoot ak bakkan lu war la waaye daal sujoot ak bakkan sunna la lu siiw la moom li ñu sukkandikoo mooy agul ci sunna lu ñu sopp la toog diggante ñaari sujoot da cee jublu yëkkati ko ca sujoot ba sujoot lu mu yàgg-yàgg mënta weesu benn kon yëkkati ko ca sujoot ba farata la toog diggante ñaari sujoot ñi am na ñu ne farata la am na ñu ne sunna la asalaamaaleykum muy sëlmal bi wax ko farata la faaw itam nga tàmbalee ko assalaamu maanaam taara ko faaw nga ne aleykum doo mën a wax aleyka diir ba mu waxee asalaamaaleykum mu toog ko farata la bu yàkkamti woon ba jóg dem di ko wax mbaa mu tëdd di ko wax mu yàqu fu mu toll ci julli gi ne tekk bu cër yi dal mu door a jàll farata la mooy fukkeel ak ñaareel yemoo mooy jubug cër yu xocc mi ngi gën a feeñ ci bu siggee ci rukkoo mbaa mu siggee ci sujoot mu dellu ba jub xocc ba cëréemel na meloon mu door a jàll yemoo googu mooy fukkeel ak ñetteel wa tartibuha ak toftale julli ga nag moom la mu jële muy fukkeel ak ñeenteel toftale julli gi mooy yéene ak allah akbar armal dañuy jiitu jàng fatiha ak taxawaay jàng fatiha topp ca rukkoo door a ñëw ak sigg ca rukkoo ba sujjóot door a ñëw ak siggee ca sujjóot ba su tëgalewul noonu rek julli gi yàqu mu ne bu doon julli tàmbali jàng faatiha mbaa tàmbali rukkoo mbaa sujjóot rek julli gi yàqu